ñu toog fii nag fas yéene jot leen ay kàddu yu néew yu jéem a fexe ba ñu ko santaane wante suñu la laamee lott ci doon ko jotale ñu jéem ci kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanamu sëriñ bi dafa diis ndax xam jotaay bi mu toogee xam bi mu doon booy yëkkati ci turam faaw mu diis yow kon ñu ngi nuyu bokk jur yëpp. di nuyu bokk réew di nuyu bokk adduna leen ndokkeel ci weeru tëdd yi di weer nga xam ne ñëpp xam nañ jiite ak positif bi nga xam ne def na ko ci ngir fas yéene ko dundee nekk ko Sëriñ Tuubaa da dundale mu yóbbante ma nag ay kàddu jëng ko ci taalibe bi murid bi nga xam ne ñoom la suñuy digal sañ leen a tere kon kàddu yi ñu ngi jëm ci bokk taalibe yi jullit ndax ñoom loolu rek li ko jëmalee ci mboolem mbokk jullit boo xam ne ñoom ma yaqbalu nasihata min axiihi muslim kon mooy kàddu yi nga xam ne jëme na ko ci yi nag mooy ginnaaw bu ñu sante ci li am tuuti ay leeral yoo xam ne ko fas ci bokk taalibe yi ngir ñëpp maasi ci xam ab tolluwaay ak fi mu toll ak fi nga xam ne fi nekk loolu itam dafa war a leer ci ñëpp ndax ku fi nekk Sëriñ Tuubaa li la war mooy santaane digle ak tere loolu rek nga seq nit ñi taalibe bi itam li ñu seq ñëw mooy sami'naa wa ata'naa loolu rek lañ am ci seen digg loolu mooy lépp loo xam ne sëriñ bi santaane na ko rek boobaa amatul li ci tànn la maa kaana wa maa kaana li mu'minin wala mu'minatin izaa qadaa Allaahu wa rasuluhu amran an takuuna lahumul xiyaratu min amrihim kon lépp lu mu santaane rek jëfi ndigal lañ ci war a def santaane bi nag mooy leeral rek moom fi mu toll ngir xam ne lépp loo xam ne déggi na ko muy loo xam ne war naa indi ay rëng-rëng yi wala indi sensibiliser ci biir réew wala adduna si fam ca nekk ak fam bëgg ñëpp ne fa nee na moom fi mu nekk fii la yéene bokk jur ñëpp ne fa fa la yéene bokk taal yëpp ne fa mooy ñëpp maas yi ca xam ne lépp loo xam ne. luy indi fitna ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax jàmm te xam ne Serigne Touba ci loolu la nekkoon ci lool la lool la santaane woon ndax mën na mos a mën def nañ ko ba tey waaye li ko mos a def li ñuy wax mooy jéggal nag kon Serigne Touba na xam ne lu ko ñuy fóoloo lu ko ñuy xeexal li nga xam ne nag mooy li nga xam ne bëgg na ñëpp xam ko muy lu war a leer ci bokki jiw bi nee na daa bëgg ñëpp yi ca xam ne nit balaa doon ab taalibe day doon jullit ba noppi. na kon li ñu war a njëkk a góorgóorlu mooy fexe ba sunu jullit ba sunu jullit wér ba sunu jullit wéree suñu taalibe dooru mën a wér waaye nee nit du du mën a doon taalibe te doon ko jullit ba kon nag nee na fii lislaam toll ci ràgg nee na ñun tëluñu lenn lu weesu fexe ba lislaam jëpp nekk yoon say. waaye lépp loo xam ne lu koy xàjjee ngeen moom tëdd loolu te fas yéene rek bëgg taal bi yëpp maase ci nekk la ko foofu xam nga daal eh, li war a nekk yiteen yiteen ñëpp mooy fexe ba lislaam bi ni ko rasulullahi digle moom nga xam ne leer na nañ ñi ne na amul lenn lu ci lënt ñaar lu ci lënt ci doomu aadama la suñ borom li santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt niw kon nag ne ñëm ne ñëpp maase ci xam ne ndegam mel lënt amul nag kon li ñu war a def góorgóorlu mooy fexe ba góorgóorlu ci lislaam jiwér taal bi jiwér Sëriñ itam ñu xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa doon gi mu doon rasulullahi sallallahu moo tax itam bari na ko ba dafa tudd ko fa xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nit ñi rasulullahi sallallahu alayhi wa kon lépp a tàbbi ci biiram kon mboolem tarixa yëpp itam eh, na ko sëriñ bi daal santaane ko ne xam ne na Sëriñ Tuubaa daana joxe wérdu xaadir daana joxe wérdu tijaan ak sa yi ak yeneen yi ci kon loolu li mu ci jëf wax ko ci laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoon na ko itam ne ko ñan ñooy yoonu murit fu yoonu murit juddoo euh, fan mooy baadam lépp géntoon lislaam mm-hmm. képp kuy wax laa ilaaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam euh, xam ne ci ak njabootam nga bokk nekk tam fa la euh, fépp fu julli ne rek fa ñoo di taalibe mm-hmm. kon Sëriñ Tuubaa wutul wutul woon ak xàjjale ci diggam ak kenn koo xam ne mbokkum jullit hmm. ci loolu itam fonk gi mu fonkoon rasulullahi sallallahu alayhi moo tax képp koo xam ne foog nga Serigne Touba itam na nga xam ne boo bokk ci njabootu rasulullahi sallallahu alayhi rek bokk nga ci njabootu Serigne nag boo dugg ci njabootu rasulullahi wala eh, amoo xamoo lay rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu da maa tàbbi ndax Serigne Touba loolu moo doonoon muhimam hmm. kon loolu na ko xam. médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gànt ko dafa waxoon ne médaille bi nga ko ko takkalee loolu day eh, firndeel ne xajju xajju dafa dem ci biir islam kon nag sëriñ bi nee na na na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax seriñ Tuubaa ko santaane woon boo ko fi mas a nekkal ku ne itam si li nga ne xam ngeen ne 1979 80 bi nga xamee ne yu mel nii xewoon na te booba sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moo fi nekkoon. سيرين مصطفى بشو نيو عندون كو موم سي خيو خو بني دو ني شيخ عبد الرحمن كي تاخواي بني ني تي امو موي حمد لله سيرين توبا بو كو نيو خولو بو كو نيو خيال كو نيو گم لو كو نيو توبل كو نيو ياكار نيانا كوم مام تام دا نين خامي فوفو رك تي لا نيك دا فا سي نكو وات نيانا بودي سي ديگ ما بوك جولي تام موي اك خوتو الاسلامي ني تام نيانا دا كو فيت بي ناخ لون لا فيكو رواتينا نك الشيخ سيد مرسال ميغا خاني موي فو مونجي xalewu Serigne Touba nee na fa ci nekkoon rek ci yaasal ko ci diggam ak bokk julli yi Serigne bi nee na nee na loola képp la fas yéene wéyal ci mboolem mboori kër kër diine yëpp fas yéene lépp àndaloo nekk benn nekk wenn say lépp lu ñu def euh, mu mu dëppook lislaam lépp lu ñu def tam mu dëppoog loo xam ne genn lu ñu ak jiw di ci am soo soosee la fas yéene te tàngam nee na kon mu ngi ñaanal Cheikh Sidi Moussa suñu borom doole leen taxaw ci barkeem kon nañ xam ne yoon yi nga xam ne waxoon na ko muy ñëpp dégg ko ñaanal te loolu la ko li ci dolli ko waat nag mooy jëm ci taalibe Serigne Touba Serigne bi nee na li nga xamante bi yëpp nag li mu yéene boppam rek dara yéene wax na boppam fi mu jëm wax na it ñu fas yéene doxalee dara desuñu nee na nag nañ xam ne yoon wii yoonu Serigne Touba. Serigne Touba da ko sanc ci yar ak i tëggin nee na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba na nga xam ne lépp looy jëfale Serigne Touba yar ak i tëggin moo ci ji kon ñaanal loolu ñu ngi koy digal taalibe yi ñun ñëpp xam ne buñ tënkoo ci liggéeyal Serigne Touba ne ne ci yar ak i tëggin sax ci taalibe bi mboolem liñ bëgg danañ ko am bu fekkente ne nag wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam ne lu leen ci dal yoo ko sant kon nag ñeneen ñu ngi di sant ñëpp di gën ñëpp di ñaan suñu borom doolu jàmm ci réew mi boole xoli jur yëpp mboolem ñi nga xam ne ñooy kirgistaan yi ci biir réew mi tam suñu borom gën leen a boole ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne yaar rek fi nekk innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey xam inna seytaan lakum aduwwun mu ne ak nax mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag innama mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag nax gi ci inna inna seytaan lakum aduwwun mu ne ko yàq kon nag nee na na nga xam ne. lii di kër gi lislaam yi defar ci ba jëm cee defoon rek moo ci am waaye yàq ci moom kenn mënu ko ndax lu leen jiitu la te kilifa yi fi nekkoon kon nag moom ci liggéeyam ak li mu fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa fas na ko yéene àndal bokk jullit ko yéene àndal bokk te teg teg ko nag ñëpp nag ci sunna Rasulullah sallallahu alayhi teg ko ci ndenkaay na Sëriñ Tuubaa te fas ko yéene fas ko yéene wàcc te fas fas yéene dugal dara fas yéene génn dara لوحنا لو بوك لو سيرين توبا جيت دوغالون دا ولا لوحنا سيرين توبا بوبتو موتا في جيجي كون نا غير باني بودال رك سيرين بي نان ني سانت نيب دوغال نيب bu fekke am na luma ci wax doon rek seen bi dara ko waxal ma agri ba